أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñépp boole seen ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii ñu ngi jëm ci fadlu zikri ngëneelu tudd yàlla fàttaliku yàlla ak teewlu yàlla subhaanahu wa taala dikk na ci alquran barab yu bare borom bi di soññ jaam yi ci teewlu borom bi subhanahu wa taala seen xol ak seen xel ànd ak seen ay làmmiñ seen làmmiñ di ko tudd saa su ne fazkuruni azkurkum yàlla nee na fàttaliku leen ma yàlla subhanahu wa taala moom mu fàttaliku leen jaam warul réere boroomam warul fàtte boroomam warul am benn seconde buy romb tabaarakallahu te xelam demul ci yàlla su sa xel nekkee ci yàlla di nga bàyyi sa xel ci yu bare bare bare soo fàtte yàlla mu fàtte la subhanahu wa taala soo ko teewloo nag doo sàggane julli doo sàggane aq sa digganteeg sa moroom doo sàggane aq sa digganteeg sa boroom daa bàyyi sa xel ci lu bare bare bare ku dul bàyyi xel yàlla rek sàggante roofu na la wal iyaazu billah borom bi ne wasku rabbaka kathiran na ngeen di tudd seen borom lu bare wa sabbix bil ashiyi wal ibkaar suba ak ngoon guddeeg bëccëg na nga koy sàbbaal subhaanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wa allahu akbar nee na guddi ak bëccëg na nga koy tuddi ko sàbbaal tudd yàlla googu nag amul limite amul nombre du gaañe insha allahu taala doo gis mukk nit kuy tudd yàlla di jàng alquran di tasbiix di wax laa ilaha illa allah ba jële ci lu koy lor léeg-léeg nit seet si la wala mu laajte naan dama doon jàng alquran ba mu yàgg ñun ma da nga wàññi alquran ji dafa day metti sa bopp mais alquran nit mënu ko jàng ba mu lay gaañ loolu lu garaaw la dama doon zikkër laa ilaha illa allah ba xëy suba ñun ñun ma naa ko wàññi mun mën na la lor da ngay gàtt fan wala nangam nangam mais yii lay xeetu wax ña la koy wax seen bopp tabaarakallahu jar nañu yërëm mais yow sa bopp warloo ko gëm ala kulli xaal su fekkee alquran kot ngay jàng te raxoo ci deneen dara du la jot su dee tudd yàlla laa ilaha illa allah te raxoo ci leneen dara du la jot wante léegi-léegi mën na am ca biir loo waxul looy jëfandikoo ba alquran bi sadd la ay karawaas sa bopp metti mbaa zikrullahi bi am lu mu la gaañ fekk ne am na loo ci dugal lu ca bokkul te ñaar li ci ëpp mooy dugal ci yëfu jinne xanaa leen ba tey mag ñi dañoo tere képp kuy wérd maa ngi jaamu yàlla nga cee rax yëfu jinne su la wóoree ne alxuraan kot ngay jàng te raxoo ci dara du la mës a gaañ insha allahu taala dafa lay yokk rek ak baatu laa ilaha illa allah yonente bi salaa alayhi wa sallam nee na afdalu zikri laa ilaha illa allah zikr bi gën a tedd gën a mag mooy wax laa ilaha illa allah amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ga di lore ku dul yàlla tabaraka wa taala ne afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah sallallahu alayhi wa sallam ne ci boppam baat bi gën a tedd mu daan ko wax ak ña ko jiitoon alayhimu salaam ci ay yonent mooy baatu laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la mooy kennal yàlla bi yonent yëpp dañu ñëwoon di woote ci xeex bokkaale dañoo kennal yàlla yàlla càppaacooli doo ko bokkaale ak kenn ak lenn lu yàlla bind boobule baat amul lu neex yàlla ba dab baatu laa ilaha illa allah mbokk yi ñoo ngi koy dénk suñu bopp te di leen ko dénku yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laysa ala laa ilaha illa allah waxsha fi quburihim wala fi nushurihim ka anni anzuru ilayhim inda sayxa yanfaduuna ru'usahum min alturab wa yaquluun alhamdu lillahi alladi azhaba anna alxazana inna rabbana la gafurun shakur nee na gaa yi nga xam ni dañu askanale seen bopp ci zikrullahi di tudd baatu laa ilaha illa allah duñu wét ci bàmmeel mukk wétaay bàmmeel boobu yàlla moo leen di wéttali ak baatu laa ilaha illa allah sonnoo seeg loolu doo tiit wétaay bàmmeel bàmmeel ni mu lëndëme ni mu ragloo sonnoo so laa ilaha illa allah moo lay wéttali si bàmmeel kooku wéttali kooku leer leer kott la nee na suñuy dekki moo lay wéttali ne mi mel na mi ngi janoog ñoom ñuy génn seen bàmmeel fëgg seen suuf seen yaram rek tabaarakallahu ànd ak di bég nan yàlla jërëjëf ni nga ñu teqalee te teggilee bi la njàqare tabaarakallahu kon kile dafa war ne gànnaay julit sa dund bakkan def ko sa soccu kenn warul fekk ni di ko yedd naan ko ndax tudd nga yàlla dafa war nekk sa soccu au quotidien léegi-léegi nga toog ci jataay yendu fa ay heure doo fa wax lu lay yokk ci yàlla dara léegi nga wéet yow kot def lu la kenn santul wéetaay boobu ay temps la jataay boobu temps la le temps est précieux nit dafa war jariñoo tempsam ci lu koy yokk mais pas lu koy wàññi ndax temps bu romb du dellu si waat insha allahu taala temps boobu nag na leen jaral tey seen kurus mbaa seen làmmiñ di wax laa ilaha illa allah su amee dëj yi wala xew-xew yi tudd dëj dëj surtout diggante ñi ngay sang néew bi bala ñu koy defar ba bala ñu koy yóbbu ñépp ngi toog di wax lan ñaari ngi déeyoo la ñoo déeyoo yàlla rek moo ko xam ak neexoon ñépp toog tiit xam ni kii dem tey wala kii yàlla yóbbu jël si mënoon a jël si jël si la yow mii fa mu jëm xamul lu ko fay fekki nga tëye sa kurus naan laa ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah yooyu ñoo ngi koy dénk suñu bopp te di leen ko dénku jataay yu dëj yi ña ngay waxtaan diggante ña nga suul néew ba dellu si mu mel naka tabarakallah kenn jóguy foon ñépp ngi seen xali xali te waroon tiit waroon tabarakallahu bàyyi xel seen bopp yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam inna kulla xasanatin taamaluha tuuzanu yowma alqiyamati illa shahadata an la ilaha illa allah فإنها لا تضع في ميزان لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السماوات السبع والأرضون وما فيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك نين بيب جف جباح بو جف دانين كو تك تي بالانس بيسكو بامو ديس لا إله إلا الله خجل تي بالانس نين كيب كوي واخ واخ يو سل تيمو دغو تي يو suñu tegee ñaari peesekaay yi teg benn peesekaay bi asamaanu juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar ak li si diggante bi teg ci bi si des laa ilaha illa allah moo gën a diis waaw kon loolu tabaarakallah ku ko yàlla may nga di ko nooso sa lamiñ may na la teraanga adduna may na la teraanga alaxira yonent bi ne salaa alayhi wa sallam ñépp dañ dëggu ajjana insha allah ba mu des ñi gàntal ñi dëmmooyu ñu ni ko kan moo gàntal kan mooy dë kan moo dëmmooyu mu ni man lam yaqul laa ilaha illa allah ki nga xam ne làmmiñam tër na wax laa ilaha illa allah nee na na ngeen di bareel di wax laa ilaha illa allah bala dox sukkaar di ñëw seen digganteeg moom seen làmmiñ du ko mën a wax nit dafay tàmmal làmmiñam loo xam ne soo demee ba nekk inconscient sax déggatoo xamatuloo sa làmmiñ di ko tudd naan laa ilaha illa allah kooku lu tàmb la mais soo ko tàmmulee nag la hawla wala quwata illa billah nee na mooy kalimatu tawxid mooy baatu wéetal yàlla kennal yàlla mooy kalimatul ixlaas sellal mooy kalimatu taqwa mooy baatu ragal yàlla mooy baat bu neex yàlla tabaraka wa taala mooy wote si dëgg mooy urwatul wusqa mooy bumbu dëgër këcc bi wante mooy samanul janna mooy pay ba ngaa duggee ajjana nee na hal jizaul ihsan illa al ihsan lan mooy teraanga lu rafet lu dul la gën a rafet lu rafet mooy lan al ihsan ndeke mooy ajjana tabaraka allah mooy laa ilaha illa allah ci dunia fii ci adduna al ihsan mooy laa ilaha illa allah soo ko dee noosoo bés pinc ma yàlla fay la ajjana al ihsan kon nag loolu na ci ñëpp bàyyi xel amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen du mbiru tariixa mbiru sharia la tabaraka allahu yonent bi ne sala alayhi wa sallam man qaala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir fukki yoon soo ko dee wax fukki yoon yàlla dan la may nga rammu ñeenti nit ci njabootu ismaila alayhim salaam bis penc ma ñeenti nit daa leen rammu ñu waroon dem safara yaa leen dugal ajjana ci barke sa waxu laa ilaha illa allah yonent bi nee na sala alayhi wa sallam asadu nnaas bi shafaati yowm alqiyamati man qaalaha xaalisan min qalbihi rawahu lbuxaari nee na ki gën tedd si nit ñi gën yelloo mu rammu la bisu penc ma mooy ku kuy tudd baatu laa ilaha illa allah te mu dëggu ci yow mu sell jóge ci xol bu sell nit lu mu miin rek foowe ko laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ilaha illa allah boobu na jóge ci xol laa ilaha illa allah su ngeen dee xadaratul juma su ngeen dee zikkër lu mu barbar na fekk xol ba tabaarakallah mu ngi koy tudd xol baa ngi naan yàlla amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ko du lore kudul yàlla tabaraka wa taala yonent bi nee na sala alayhi wa sallam soo nee subhanallah subhanallah subhanallah yàlla génne la yoolu génne sarax xam nga saraxe kon yaatu na du rek togg ñam mbaa yore ay weccit nee na soo téye sa course amuloo loo génne def sa subhanallah yàlla génne la yoolu gu génne sarax soo nee alhamdulilah am yoolu génne sarax soo nee la allahu akbar am yoolu génne sarax soo nee laa ilaha illa allah am yoolu génn sarax nee na kalimataani xafifataani ala lisaan faqirataani fi lmisaan xabibataani ila arrahman subhaana allahi wa bixamdihi subhaana allahi alazim buxaari ak muslim ko solo yonent bi salaa sallam neen ñaari baata ngi nii woyof ci lammiñ diis ci kaw balance wante neex yàlla tabaraka wa taala woyof na ci lammiñ diis ca balance peso bi su penc ma ba noppi mu neex yàlla mu di ko dégg subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim xanaa kii gàtt na tabarakallahu kii soxna yi su ngeen noppee ku nekk na génn seet ka la ko mën bindal mu bindal la ko nga def ka sa soccu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yonent bi nee na sala alayhi wa sallam man qaala ida asbaxa miata marra wa ida amsa miata marra سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر ni soo xëyee def ko téeméeri yoon soo gontee def ko téeméeri yoon yàlla faral la sa bàkkaar tabaarakallah su meroon na duusu géej gi vague yi kawe yooyu si bàkkaar yàlla faral la ko dëpp ci suuf dara du la daal insha allahu taala yàlla neen ci alquran uzkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum tudd leen yàlla position taxaw mbaa toog mbaa tëdd kon mayu la benn moment boo xamante ni mën nga ñàkk bañ tudd yàlla soo taxawee tuddal yàlla soo toogee tuddal yàlla soo tëddee sax am jàngoro tëdde wet leen tuddal yàlla malade yi feebar su guddi jotee ñoom kot ak seen lal seen njeganaay jaaxle naan fan lañu jëm ña nekk ca barab ba nga xamante caabi fi leen gannaaw ca prison ya nañu boore seen wéttal di tudd yàlla subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tudd yàlla na dafa ànd ak ay teggin soo dee tudd yàlla na nga fexe ba ànd ak laab njàpp ku ko mën def ko sa wéttal di ànd ak njàpp fu sa njàpp tojee nga jàppaat amul gàllaaj bu gën a for njàpp mbokk yu tedd yi soo jàppee ba noppi la ngay wax sa làmmiñ naka sa xol di tudd yooyu ñaar ñooy ànd mënoo di tudd yàlla ba noppi taal sa télévision seetaan football loo gis sa yoon a ngi ci nga teg ci baat di tudd yàlla tey sa kurus di waxtaan naka ñu bari di def koo gis mi ngi téye kurusam nekk ci mbedd mi lu nekk nga commentaire que allah la ilaha illallah commentaire football la ilaha illallah commentaire mbër mi la ilaha illallah commentaire ki si koñ bi mais mënul nekk mënoo def si yàlla sa xol def ci leneen kon na ànd ak teewlu na ànd ak toroxlu tabaarakallahu na ànd ak tawaaduan wàcce say mbagg yaakaar yërmale suñu borom insha allahu taala pour mu nangul la sabatu tawxid suñu yàlla maye ba ëllëg insha allahu taala ñu mottali ko allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين